maam foo leen jaay ñoo nekk si jooli de waaye yaa ngi si jàmm ki moom daa baax moom waaw fii nii maa ngi ci jàmm ak <laughs> morom salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam yéene safoo chaîne bi di Buzz vingt 221 ñu ngi sàkku bu baax ngeen abonné aimé partagé commentaire like ndax kat saa su ne loolu dina nekk li nga xam ni lu ñu daal di jàppale la mën nañ ne bokk na ci sëriñ ñi nga xam ni ñu daal di téye buzz bi la bu baax a baax ginnaaw ki nga xam ni moom mi di Kounkandé mi waxoon dina xar géej gile kii di Moustapha Guèye moom tamit nekk na ki nga xam ni ku daal di nekk fës loolu ci réseaux sociaux yi la waaye tamit ku daal di fës loolu la ci wax yi nga xam ni ay gros mots rek lay daal di doon ba tax na sax moom Moustapha Guèye mi la jamono gi nga xam ni mim réew di Sénégal réew di Sénégal ñëpp yaakaaroon nañ bu baax a baax jamono gi mu ngi fi nga xam ne moo di ndinga sun ba sax ñenn ñi naan mu ngi Bambey ñi naan mu ngi Njaareem ku nekk ku nekk daal di ci sénégalais yi di wax tund yi nga xam ni foofee nga daal la moom la daal di faro waaye nag mun nañ ne ki nga xam ni moo di sëñ Moustapha Guèye tey jile la gën a fës tey jile la gën a nekk ci li nga xam ni ñoo di actualité Sénégal gi la waaye tey jii la gën a nekk ci bànneex tey jii la gën a nekk ci yatange tey ji la gën a fësal ni moom lu mu nekkoon démb ak barka barkaat démb foofee la gën a taxawale waaye ne sénégalais yi dañaa baaxoo li nga xam ni moo di wax kase waaye moom mu ngi ci yaataa yumbe bu baax a baax loole nekk fi sax ànd ak ay naataangoom ñi nga xam ni ñoo daal di fësal bile vidéo mu nekk mbir bi nga xam ni daanaka sénégal gile kon nag moom Moustapha daal na leen classé xam ni sénégal dañaa baaxoo wax kase mu nekk mbir nga xam ni moom sax dem na ba suñu sëñ dudàk tuddee ko liñ ci internet bile sëriñ booy daanaka mën nañ ne jamono guñ toll ni nag ginnaaw fësam gii gis nañu ëtt na bu baax a baax ak fës yi nga xam ni noonu lañ daan ko gisee waaye nag nekk na ak tekkaaral lool uuf li nga xam ni moo di ak baraada kafeem ànd ak lenn ci ay taalibeem waaye nag lu munta am ba am lépp loo xam ni jël ay responsabilités tey ak kàddu yi ngand yi nga xam ni daan na ko fësal ci ëtt internet bi mën nañ ne jamono guñ toll nii état bu Sénégal war na ci taxawaay jël ci matuwaay bu mat sëkk ginnaaw bi nga xam ñii di ay kilifaam bu fekkee ni jëluñu benn yoon ay responsabilité te ci moom milee ñi nga xam ñoo di askanu Sénégal ba ci ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bu yees bi lee di gouvernement Bassirou Diomaye Diakhar Faye gile war nañ jël seen matuwaay ngir kat bépp internet fi mu mënti doon file ngay wax lépp loo xam lépp loo xam ne moom nga jaay ci produit bi mu nekk loo xam ne am nga droit sañ-sañ def ko waaye nag lépp loo xam ni da ngaa jug ngir diviser wala kat jug ngir wax yenn wax yi la ñu daal lay teg fi nga xam ni ci yoon la war a doon ndax kat am na loo xam ni daanaka boo amee yenn mbooloo yi war waratuñ ko nangu benn yoon ci mim réew du Sénégal ñu ko fi daggaan mu nekk mbir yi nga xam ni saa su ne ak xale bu ndaw te micro di wax lu ko neex lu ko saf te boobaa mën nañ ay gros mots rek lay daal di doon loole bu yàggee dafay daal nga xam ni kenn dootul xamante réew moom mu lay doon donte sax mun nañ ne Sénégal nag daanaka réew layig la waaye réewu layig boobu le war nañu xool bu baax a baax naka la ñu daal di doxalee ba saa su ne lépp lu ñuy wax lu nekk ak lu ñuy jëf lu nekk mu nekk lu ànd diine ak jamono waaye mu nekk li nga xam ne ay réalité Sénégal gi waaye tamit mu nekk li nga xam ni askanu Sénégal ku ne boo ko dégloo di nga xam ni kat lii da mooy dëgg loolee lañ daal gis ni mooy moom la ñu war a doxe ci mim réew du Sénégal waaye daanaka amaana am na loo xam ni war nañ ko fee bañ ba faw waaye nag dinañ xool bu baax a baax génn kii la di Moustapha moom Moustapha Guèye sëñ Mara Mile ne tax dina ute génn yi njëkk yi nga xam ni loolu la fi daan génne